suñ suñ Pastef actuellement moo ñu ko ñëpp gisee rek mooy euh, nekk organisation politique boo xam ne euh, dañu continuer du survivre par rapport ak toute injustice ak toute intimidation boo xam ne euh, suñu parti bi mu juddoo ba léegi ñu ngi koy dund en particulier suñu leader du ko dund ba ñëpp gis nañ ko donc suñu Pastef mooy gën a taxaw gën a góor góorgóorlu bañ a wane faiblesse projet bi tax nu jug dox ci fépp dugg ci àdduna bi fépp Sénégal tey foo dem ñëpp ñu ngi wax Pastef te adduna bi ñëpp di nga wax Pastef parce que loolu dafa am lu ko laal. Mhm. mooy engagement détermination ak patriotisme. tey leen ko gën a wane tey leen ni gën a wane suñu soutien par rapport à notre projet politique en particulier aussi par rapport à notre leader boo xam ne injustice bi mu dund adduna bi ñëpp xam nañ ko léegi donc suñu Pastef fu mu toll nii mooy continuer suivre par rapport à ce projet continuer taxaw thème jàppale suñu leader wan ko notre soutien notre détermination par rapport sa projet loolu mooy suñu passé tey. est-ce que vous avez toujours espoir par rapport à votre projet. tàmm nañ ko chaque fois suñu ne projet bi c'est remis en cause wala soit am naa jafe-jafe si yeneen gën a jub taxawaat je pense que tey ku suivre actualité internationale te ñëpp di wax Sénégal projet bi moo ko tax ak suñu leader ñëpp gis nañ tey injustice te injustice mënoo ko dund sa organisation politique di ko dund nga naan di remettre en cause ce projet politique au tey lii am tey ba ñëpp gis ni c'est pas normal pour la démocratie du Sénégal c'est pas normal même pour l'image diplomatique du Sénégal te sànq wax nañ ko ci émission bi la médiation même euh, des des des délégués africains ci la crise russe et grecque donc loolu dama manière indirecte la situation du politique am na effet bi mu ci def tey loolu mooy wone ni tey euh, projet bi. Mhm. tey leen gën a gëm ni tey euh, mun na réaliser wu te incha allah en 2024 donc ku suivre actualité. di mhm. xam ne tey projet bi xaatul bay dee te du nga ko nangu. Mhm. ne serait-ce la mémoire des gens des jeunes presque trente jeunes yoo xam ne depuis mhm. deux ans yi buum ne leen kenn xamul lu ko waral.